mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu defal jàmm ak xéewal ak sutura barkeb alquran di leen jaajëfal bu baax a baax ci topp ngeen di topp seen bi comme ni leen ko waxe woon rek yéen ñi nga xamante ni bi yéen a bëgg di topp suñu liggéey bi man ngeen a enregistré numéro bii muy 78 101 61 56 mooy numéro bii di affiché ci écran bi yéen ñi nga xam ne ne bëgg topp sunu liggéey ci YouTube bi seen bii nga xam ne mooy Khelcom TV officiel du ab groupe nag du groupe WhatsApp seen YouTube la seen YouTube la boo xamante ni bii dañ fay jàngale xeeti xam-xam yépp te ak lu jëm ci wàllu actualité ci kàttanu suñu borom noonu lañ ko bëggee te noonu lañ ko fa yéenee doxee moo tax yow mi nga xamante ne bi yaa may dégg te bëgg kon topp suñu liggéey mu continuer na nga enregistré numéro bii ngay jàkkaar lool di nga gis whatsapp bi nga envoyé ñu vocal ñu yónnee la lien bi nga mën a dem ci seen youtube boobu abonné ci direct incha allahu rabbi ndax seen la boo xam ni sa spécial ndax lu sori ci ñun lool ra te it seen bi toll na foo xamante ne bii ay borom xam-xam rek ñoo koy déglu kon ñoo ngi sàkku ci ku nekk tey dégg sama kàddu rek te xam ni yaa ngi ci seen YouTube bii di Diwane TV nga enregistré numéro bii nga yónnee ñu vocal ne ñu lien bi leen soxla ñu envoyé la ko nga mën a dem ci chaîne YouTube boobu direct ndax seen la boo xam ni li ma ci bëgg ci kàttanu ak suñu borom subhaanahu wa taala xeeti fànni xam-xam yépp bëgg naa ko saa jàngale incha allahu rabbi ak lu jëm ci wàllu actualité. mbokk yi tey ñu indi leen chakara boo xamante ni bi lu yéeme la lool ci wàllu bayre jaay muy baat bii ngay gis te ma bind ko ñetti yoon nga xam ni soixante-dix fois nga ko war a bind soixante-dix juróom-ñaar fukki yoon nga koy bind waaye mbokk yi laataa loolu dañuy wax ni yéen ñi nga xam ne yéen soxla sunu sunguf bii nga xam ni ci wàllum bayre jaay lay dox mu doon sunguf boo xam ne lépp looy bañ mu jar bu mu ko laal lu efficace la loo xam ne lu doy waar la lépp loo xam ni bëggoo koo jaay rek boo ko sunguf bi laal moom 15000 francs lañ koy joxe ci ki nga xamante ne bii dikk na ki mënta dikk fu mën a nekk bu dugalee 17000 des na ko yóbbante den ko teg ci oto yi ba mu egg fa mu nekk ci kàttanuk seen borom subhanahu wa taala waaye nag mbokk yow lu may déglu te nga xam ni mën ngaa jàng alxuraan yéen nañ ñëpp ku si nekk ma am alal. yooyu neen ku si nekk nga am xaalis ndax jamono metti na metti goo xam ne foo ko takk weesu nga ko wallaahi wal qur'aani waaye am na secret boo xamante ni bii ñaari secret la billaahi lazi laa ilaha illa huwa rabbul kaaba benn bi ñu ngi ko def ñun ba nii nii mi ngi ak ñun ñu def ko waaye depuis ñu ko defee ba nëga ni wallaahi wal qur'aani secret boobu képp ko xam yor nga ko maanaam duto ñàkk xaalis mënul nekk man mii di wax ak yéen mi man ma def ko beneen bi nag képp koo xam ne mën ngaa jàng alxuraan yow mooy déglu doon sëriñu daar yor ay dongo ndax ku ne xam na ni kërug donga day miti ci kàttanuk suñu borom na nga enregistré suñu numéro bii nga woonu ñaari secret yépp benn bu si nekk ñu ngi koy joxee dix mille yaay xool boo ci bëgg benn bi ci kalpe dem benn bi yow mi nga xamante ne bii man ngaa jàng alxuraanul karim ñu wax la saar woo xamante ni bii danga koy faral di jàng wallahi wal quraani bis ba nga ko defee balaa dellu si maanaam di nga jot xaalis boo xamante ni di nga yéemu suñu borom dinañ la orange ne ba tàyyi des na la wari ba tàyyi des na la wéef ba tàyyi ci kàttanu suñu borom képp koo xam ne bëgg nga secret yooyu bu si nekk maa ngi koy jàngalee dix mille francs dix mille yi nag tojul dërëm. yokkul wàññikuwul dix mille francs lay jàngale secret boobu képp koo xam bëgg ko ba ma woowee boo yónnee dix mille dix mille day mat sëkk dara du ci toj day mat sëkk ma wax la secret bu si nekk nañ koy jëfandikoo bu dee da bëgg ñaar yépp nag bu si nekk dix mille francs la mën ngaa dugal ma wax la ko ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala yéene naa ko ñëpp daal yéene naa ko ñëpp nag ci kàttanu suñu borom dafa doon loo xam ne mënuñu koo maye gratuit daay bu fekkonte ne bii am na ndigalu maye ko gratuit dana ko maye gratuit loolu moo tax waaye yow mi may déglu rek te soxla wàllum ñaan ak lu mën a doon rek incha allahu rabbi mën ngaa woote si numéro bi ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala waaye mbokk mi secret bii nag secret bay rajaay bu doy war la yow mi nga xam ne dangay jaay da ngay bind baat bii muy baatub alladina waaye da ngay tàqale araf yi comme nii ma ko tàqale def alif def laam def siin def yaa def nga def ko ba muy soixante-dix fois nga def ko saafara saafara si nga def ci xorom ba mu saf nga def ko sa bitil saa boo xëyee saa boo sa place li ngay jaay nga wis ko ci moo xam ki yor taabal moo xam kii xëy di lal wallaahi wal quraan képp ku ko def ko nekk da nga gis bayra jaay bu am doole yal na suñu borom barke lépp ci barkeb Seydina Muhammad defal leen ci lu seen jort barkeb alquraanul karim barkeb alquraanul karim barkeb Cheikh Saalihu Mbacke wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa